chers amis internautes sénégalais de la diaspora suñu mbokk France naabe yi yéen ñi nga xamante ni yéen a amoon jaaxle wala njàqare seen jaaxle seen njàqare jeex na ndax ñan waa Jelf Service Jelf Service di agence immobilière boo xamante ni ñoo fi nekk fii ci biir réew mi nekkal leen fi nekkal fi askan wi tamit ci seenu njàqare ci wàllu dëkkuwaay ak lu ni mel jeune entrepreneur libre du Fouta mooy Jelf Service di agence immobilière boo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu location wàllu vente de terrain gérance construction ak gestion immobilière gère bi service ay terrain yu mucc ayib am nañ ko fii ak ay baay yoo xamante ni ci diggante ay dëkkuwaay yoo xamante ni sa tànneefu bopp lay doon rawatina ci fi nga xamante ne dafa xew ci jamono yi di jam ñaajo fi nga xamante ni mooy Lac Rose Diass Tivaouane Kër Massar Dakar et cetera. man la représentant u Zelf Service muy jeune entrepreneur libre du Fouta suñu local mu fii ci Pikine Daaru Xudus ci parcelle numéro 8210 en fait suñu liggéey moo ngi basé wu ci immobilier maanaam achat et vente de terrain location gérance gestion de maison. mën nga jox ko ak waa Zelf Service ci numéro téléphone bi nga xamante ni mooy 33 834 59 27. 33 834 59 nga yónnee leen mel ci seen email bi nga xamante ni mooy immobilier à votre service arobase gmail point com daal di jokkoo ak ñoom. waaye nee naa la yow mi nga xam ne nga nekk bitim réew bëgg fii terrain wala nga nekk bitim réew yor fii sa kër ñàkk ku la ko gérer wala yi tamit nga bëgg dëkkuwaay bu mucc ay boo xamante ni fi mu toll daanaka taw feex rek la lay jural jokkoo ak ñi nga xamante ni mooy waa Jeunes service jeune entrepreneur libre du Fouta. fii ci diwaanu Ndakaaru seen adresse nekk fii ci Pikine Daaru Xuddoos waaye yamuñu ci lool dañ ko délocaliser ndax boo duggee ci région yi tamit macha allah agence yi ma nga fa waaye fi mu toll léegi tey ngeen daal di koy dégg au niveau sur le plan international maanaam yéen ñi nga xam da ngeen a nekk bitim réew mën ngeen a jokkoo ko ñoom ci seen email bi nga xam ne moom laa leen jox su ko defee njàqare dootu la ñam jaaxle dootu ci am jël service daal askan wi la fi nekkal rawatina internet yi. sénégalais de la diaspora ak suñu mbokk France naa yi nga xamante ne ñoo doon am coono ak jaaxle jël service daal ci kaw ci kanam ci lu baax macha allah.